quelle nuit Argentine defati na mëninam dooru kookee ñu naan ko Colombie par expérience Colombie une belle équipe mais malheureusement kañ jaakaar loolu la blessure Messi bi Messi jooy na ndeysaan salaam gars yi bëgg naa leen nuyu ko ci nekk seen tur ak seen sant Copa America bi ñëpp a ngi naan Messi Messi lumière Messi ci blessure beeg lam jot a def ak yëpp nëbb na Lautaro Martinez liggéey bi mu def est-ce que xam ngeen ne Copa America bi Martinez moo ko jox Argentine cinq buts la am doon meilleur buteur. te ay but yu essentiel lay dugal bii muy dugal yëpp mooy gagnélu Argentine ba ni Argentine jëlee coupe bi joueur la boo xam ne nii actuellement dafa nekkoon ci ombre Messi peut-être bu Messi demee mën naa woyal kon ne yére équipe bi ci ndoddam mais Lionel Messi gars ay jooyam ndeysaan oh là là blessure bi tànk bi gis ngeen ni mu neewee démb nag xam naa ni jooy na jooy boo xam ne la war na kii dafa yaakaaroon ne ndeysaan ñàkk nan waaye balaa doro ñëwee damay football ngir yow. keroog noo la defoon tamit ba mu blessé dana ko damay football ngir yow dugal ngir yow effectivement noonu la def ba permettre ko Argentine gagné mu doon joueur yoo xam ne dañoo jox cër kooku di Lionel Messi. Colombie aussi ñàkk nañ mais ils ont une belle belle équipe James Rodriguez avec six passes décisives ci benn compétition ak benn bi pied gauche d'or boobu man bëgg naa koo gisaat Europe képp ko bëgg a gisaat Europe dëndal ma ko ci commentaire Argentine doon na 1 bi à 0 kooku ko Colombie kali jël lii di Copa America bi ci anim bu clean mu ngi noonee ma ngeen xaar ci commentaire yi kan ngeen jox meilleur joueur Copa bi ngeen bindal ma ko ci commentaire man jox naa ko Lautaro Martinez bu weeloo weesoo képp ko xam ne gars yi da nga bëgg iPhone bu tegu ci temps da ngay woote kooku di Samu Global Business boo yore iPhone mën nga dugal. mu jaay la waaye it bu loo bëgg daal mu ngi noonu mën nga dem ci Koke di Sam en face sa Colobane Colobane en face marché euh, robinet séeréer foofee la nekkee waaye it yamaatuñ foofu son numéro 78 441 63 81 woo leen ko képp ko xam da nga bëgg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 même bu weer bi tojee mën nga ñëw ñu defal la essence ci njëg bu mucc ayib en même temps aussi boo leen ko bëggee réparé ba ñu am nañ suñu réparateur ci bunt bi mën nañ leen euh, ne. du bu clean bu bees tàq lañ doon authentique lay doon. te yaa koy defar réglage yi mise à jour ah, ñoo koy defar dañ koy réglé lépp balaa muy génn ci biir bi en plus ñu bindal ko facture. non mais gars nag loo ngeen xaar pour ñëw ci sama nag fii moom lépp yaa ngi ñu quoi ñu dem ci deuxième question